asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateur 2STV yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam maa ngi jiital ci sama nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général kullu murit di ko ñaanal san borom tabaraka wa taala yàggal ko fi te wéral ko kàttanal ko dëgëral ko jiital ko ci lislaam jullit ñëpp ak murit yëpp nangul ko te muy seen njariñu tey ak ëllëg hmm. maa ngi soññe itam ci liggéey bi nga xam ne moom la teg ci kanamam te saa su ne mu di ko yittewoo di ca wane ak pëstéef ak bëgg ak bëgg ñëpp ànd koog moom te muy complexe islamique bii maa ngi koy fàttali képp koo xam ne bëgg nga lu baax na nga fexe ba tàbbal sa alal ci liggéey bu kawe boobu nga xam ne ñaan nañu yàlla sëriñ bi ubbil ko boppam ay génération yi génération yoo xam ne ay promotion yu kawe lañuy doon ci wàllu xam-xam génnee fa ci kanamam te yàlla def ñuy jariñ umma islamique bi yëpp jariñ àddina bi yëpp maa ngi ñaanal waa réew mi ñëpp jàmm maa ngi ndokkeel jullit ñëpp ak murid yëpp ci weeru safar wu tedd wii ñu nekk di am mbégte nag dalal gan gu tedd goo xam ne tey jii man ak Pape Sidi Fall ñoo ko daan séq waaye moom it mu am lu ko tënk tey ci wàllu liggéey mu nekk loo xam ne ci farata yi kër gi la bokk ma wuutu ko fi nag tey dalal sëñ Ahmadou Mbacké mu daarul Muxti di soppe ñëpp di xaritu ñëpp di ku sopp xam-xam di ku sopp borom Touba di ku sopp di jàngale di jariñe moo tax ñun saa su ne dañuy woo dalal ko fi tey moom mën xam naa ne téléspectateurs yi dégg nañu lool ndax bi ñu annoncé rek ne sëñ Ahmadou la ñuy dalal gis naa bu baax réaction yi nga xam ne moom la def ci biir réseaux sociaux yi ak sunu support de communication yëpp kon sëñ Ahmadou maa ngi lay nuyu bu baax. di la ziare Mbacke Balla. maaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mourid Sadikh maa ngi lay ziar bu baax di la ndokkeel di la euh, sant bu baax itam ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne yéen a ngi koy taxaw ci waajal màggal Tuubaa gi. Mm. ak xamal murid yi. Mm. anam gi gën ci màggal. ak euh, fàttali leen itam jeexite sëriñ bi ak sëriñ bi ak i doxinam ak i meloom ak i jikkoom ak euh, yoonam wu sell wa ñoo ngi ñaan yàlla nangu liggéey bi yëpp te boole nu ko boole nu ci fay noonu ñëpp ak mbokki jullit yëpp daraje sëriñ bi noo ngi ngi fàttali ne mbooloo mi nga xam ne ci la sëñ Ahmadou mii di yëngu ci wàllu xam muy Rawdu Rayaahin te sëriñ Ahmadou Mbacke Badawi mu sëriñ Fallilou jiite ko sëriñ bi ci boppam moo ñu wax ci làmmiñam ni tànn gi ñu leen tànn ànd ak ñoom liggéey bii tawféex ju kawe la mi ngi ñaanit ñu am ci ngatandu sëriñ Tuubaa kon lii am nañu ci ndigal bu wóor a wóor waaye xam nañ itam ni ku baax ci lim bëgg ñu wax ko jullit ñi wax ko murit yi làmb nañu ba daj barab bi nga xam ne foofu la ko denc tey nag thème bi ñu leen tànnal mooy thème jàpp naa sax ne bi gën a rëy ndax sëriñ Touba amul lu dul boroomam boolewul boroomam ak dara gisul lu dul boroomam yëngoom ak dalam lépp da ko jagleel boroomam ni ko du Mouhamadou Mountakha di waxee biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis lépp ci boroomam rek la ne kon loolu bu fekkee moom la ñu bëgg a waxtaanee Euh, waxtaan la boo xam ne yaakaar naa ne waxtaan bu boo xam ne ci xaalam lañ toll dëgg dëgg dëgg ndax boroomam lay sant mm. ci xéewal yi ko boroomam def defal ngi ko boroomam melal lim ko defal ak it ñun ñi nga xam ne moonu booleek moom tawféex ju ñu amee ci diggante boobu kon euh, ab diggante ñaar a koy séq mm. euh, sëñ Axma li ñu lay jëkk a laaj mm-hmm. mooy kookii sëriñ tubaa di wax mooy boroomam mm-hmm. kookii la ñu bëgg nun nga présenté ñu ko mm-hmm. présentation bi nga xam ne ki gën a gàtt xam-xam ci ñun dana ko mën a jàpp te dana doon mel na ni téereb tawxiid bu rëy ci moom jërëjëf sëñ Murid euh, sëriñ bu mag bi ni nga ko waxe sunu borom tabaaraka wa taala moom la jàppe woon ne mooy buuram mhm. mooy boroomam moom la bëggoon mhm. moom la doon dàkk moom la doon wut mhm. moom la doon xeeñtu ci lépp bëggug suñu borom rek ci la mas di ne moom la doon jéem a xam itam cofeelam itam gi gën a rëy mooy bëgg gi bëgg yàlla te sax mu giñ ci suñu borom ne giñ naa ci yàlla ne suñu borom laa gën a bëgg ci lépp lu may moom yamiinu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wan baax du ahab mais ginnaaw lu bu suñu borom mhm. ginnaaw suñu borom nag mhm. rasulullahi laa gën a sopp ci mbindeef waaye suñ borom moom la gënoon a bëgg suñu borom moomu nag mhm. buñ ko doon xamle moom mooy ki gën a fés gën a leer gën a wér te mooy yàlla mi nga xam ne moo sàkk lépp nga xam ne moom sëñ Tuubaa dara wax ne tawxiid imaan dëgg-dëgg mooy nga xam ne ku may suñ boroom rek mhm. suñ borom a ko sàkk lu dul suñ borom rek suñ borom a ko sàkk mhm. mooy buur bu bari kàttan boobu yi nga xam ne mhm. tëmbalewul fenn yemul fen léppi kattan ci moom la daje léppi xam-xam ci moom la daje léppi man-man ci moom la daje wax nanu melal nanu boom ci alxuraanu karim qul huwa allahu ahad benn buur la itam amul ñaar amul ñett amul doom amul ku ko meññi waaw te lépp itam ci moom la aju ndax moo yor lépp moo moo moo mooy saytu lépp mooy doxal lépp mooy qayyumu samawaati wal ardi suñu borom wax nañu ne huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa aalimu alxaybi walchahaada huwa arrahmanu arrahim huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquduusu alsalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabbir subhaanallahi amma yushrikuna mooy buur bi nga xam ne dara ump ko borom yërmaane nag ju bare bare bare bare joo xam ni xajoo na lépp itam waaye di ko sell tur yu baax yu kawe yu sell yëpp it moo ko moom kookee nag mooy yàlla mi nga xam ne moo sàkk lépp nga xam ne doomu aadama bi ñu nekkee ci kaw suuf ba léegi waxtu ne ñi koy xam dëkk boo dugg mën naa bañ am ab jàngukaay ci njëlbeen nga mën naa bañ a am yu bëree bëri waaye ab jaamukaay yàlla moom dana fa am xeet yëpp a ko xam ne xeet wu ne wutal nga koo tur waaw noonu yàlla lañ koy wax <laughs> arab yi allahu lañ koy wax séeréer am na nuñ ko fi waxee mi ngoog tubaab yi am na nuñ koy wax mm-hmm. anglais am na nuñ koy mm-hmm. xeet woo dugg xam nañ ko mm-hmm. kookoy mooy yàlla mi nga xam ne mooy al awalu wal axiru wal daahiru wal baatinu wa huwa bi kulli shay'in alim laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir bu ko defee nag bu ñuy wax digganteem ak sëriñ bi dafa am lu ñuy wax rabbaniya rabbaniyul azam mooy turu euh, tem bi rabbaniya nag mooy ki nga xam ne daa féeteeg suñu borom ci bëgg ko ak jegeñ jegeñ lu ko ak sàkku ngërëmam ak jéem koo xam ba mujj nag seeyal léppam ci suñu borom mhm. mooy ak bëggam mu seeral ko ci bëggu suñu borom mhm. ba amatu bëgg lu may lu yàlla bëgg rek mhm. mel ne weñ gu ñuul gii nga gis nga xam ne ak weñ la bu ñuul kukk waaye boo ko jegalee xal yi di ko jegaleeg moom mën naa mujj di xonq ba mujj mel ne xal nga xam ne doo ko mën a xàmmee xal yi donte nag moom ku ne xam ne ne xal la moom loolu yi mooy rabbaniya sëriñ bu mag bi nag ni mu ko dundee loolu mooy doon waxtaan bi incha allahu taala nu fas ko yéene def ci ñeenti xaaj bu ko waxtu yu mayee bu njëkk bi mooy ni mu wéetale suñu borom tawxiid ni mu ko dundee ñaareel bi mooy ibaada te mooy ibaada xam nga li cër yi def loolu lañ tuddee ibaada waaye li xol bay def loolu ubodiya lañ koy wax ak ubodatu ñett yooyu itam lu ci ne am na nu ko sëñ bi dundee waaye ba ci topp mooy bëgg gi mu bëgg suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne dañ ko ko mooñaale ni ko sëñ Bachir waxee waaye ba ci toppit mooy li ko suñ borom faye nag am borom wax na ne boo doxee dégg nga di wut si ma ma gàttanu daw maanaam man ma daw gàttanu la man ataani yem si ataytuhu xër wala booy dox di ma wut si damay daw gàttanu la man gàttanu googu ko suñ borom gàttanu nag ak lam ko gàttandoo loole itam moom la ñuy mujjee insha allah suñ kem kattan bari na bari na lu lu Serigne Mountakha di wax. Hmm. Euh, di tudd baatu ngatandu boobu. Hmm. ñu ngi fàttaliku itam ni am na atam Serigne Saliou wax fii ci jullikaay bi ne. àddina dëddu na ma ngay wéy. ndeysaan yàlla nag lu jege la. ndeysaan te day gàttandu. ndeysaan kon euh, ban jaam moo war a jëm ci boroomam ak bu ca jëmee. lan la jëkk a ittewoo maanaam euh, tawxiid hmm. bi ngay bi ngay bi ngay wax ni moom la sëriñ bi am diggam boromam ndax euh, dëgg la tur yi bari na hmm. xeet wu ne yàlla def na ci ñoom ñu yëg ne am na ku leen bind am na nuñ ko tuddee hmm. waaye nag moom am na nu mu présenté boppam am na it nu mu bëgg ku ko ni jàppee waaw ndax loolu la day am man nga maa jéem a làmbatu waaye am na koo xam ne xam na ni may jàppee hmm. te xam-xam mooy mën a maye loolu hmm. kon mel na ni ci wàllu xam-xam hmm. am na jàppin wóor woo xam ne sëriñ bi jàpp na ko boroomam ci noonu tawxiid boobu lañu bëgg nga présenté ñu ko waaye nag ñëw ak ñun itam ci jëf jëf ji nga xam ne gannaaw ba mu jàppee na mu war a jàppee bu jógee dàkki bëggam nan la koy nan la koy jëfee xol bi itam dinañu bëgg a xam nan la daa jëfe moom it hmm. ak lan la xol bi daan gis yëg sunu boroom hmm. yëg ne lii ci boroomam la bàyyi ko ak loolu it naka la ko daan nan la ko daan dikkee hmm. jërëjëf sëñ sëñ Mouride eh, sëriñ bu mag bi mën nañ ne bu ñuy wax tawxiid ak moomee la ma moom ci wax na ko sax nee na tawxiid moom maa ko moom loolu am na fu mu wax ne eh, mallakani tawxiida rabbil ahadu maanaam suñu borom moo ko moom loo tawxiid nga xam ne ak moomee la ma ba tax na dundam gépp ci biir wéetal suñu borom la ko la ko dund sëriñ mag bi danaa wax ne suñu borom a ko terale ngëm ngëm yàlla gu dëgër loolu mu tawfeex la joo xam ne suñu borom moo ko defal naka jekk ba mu feeñee rek la feeñ ci biir njaboot goo xam ne njabootu gu gëm yàlla lañ gu koy gu koy xaqam lañ mu yaru ci loolu màgg ci jàng ci ba am ci tawféex ji nga xam ne moom la ci am wax na ne suñu borom ci moo ko sax moo ko sax tawxiid wax na ne laqana nii na ni laahu la daa idaahu tawxiida laa ilaha illa allaahu suñu borom ci moo ko sa tawxiid ba mu nekk ci géej ga la ko sax nag dëgg-dëgg tawxiid eh, wax na ne itam ne tawxiid mooy diineem wax na ne diini ya tawxiidu ilahi nnaasi bi sunnatil maaxi eh, min al wax na ci wax na ci wax na ko ci bërëb diiniye tawxiidu ilaahi bittibaa mm-hmm. man qaadani wax na lu bëri bëri ne diineem mm-hmm. tawxiid la mooy wéetal suñu borom tabaraka wa taala wax na itam ne moom li muy fàggu ci adduna mm-hmm. la ci ëpp solo mooy wéetal suñu borom kasbiya tawxiidu ilaahiyal jalil Eh, loolu wax na ko wax na sax ne ngànnaay li muy xeexe weesuwul wéetal suñu borom tabaaraka wa taala wax na ne sayfi lladi yafri tula man sallathu tawxiduhu fa huwa al ilahu al waxidu nee na ji nga xam ne moom lay xeexe ngànnaay mooy wéetal suñu borom tabaaraka wa taala ndax ne moom suñu borom da ko gindi jubbanti ko tërbiye ko lépp mu jaare ko ci tawxid moo leen wax ne hadaniyal ahadu bi tawxidi kon tawxiid moom mbirum sëñ Tuubaa la moom sëñ wax ne sama xol maanaam tawxiid da ko fees ba lu dul tawxiid mënatu cee dugg lam yanxu qalbi gayru tawxiidil malik kon jëmmi tawxiid moom mën nañ ne mooy moomeelu sëriñ bi la mm-hmm. nga xam ne séq ko kenn gis nga mbindam laa ilaha illa da ci bari xasida yi foo dugg rek mhm. laa ilaha laa ilaha illallah borom jox na ma ko mhm. dégg nga daw iya maanaam day wax sax la ilaha mooy sama leer mhm. may nuu niitoo bokk daw iya laa ilaha illallahu muhammadun arsalahu ilahu di jëmm joo xam ne eh, waxtu ne dara xiir maanaam tawxiid moom am na am na ay ay ay déggin ak njàngin ni nga ko ni nga ko junjee waaye loolu jàngal nanu tawxiidu ahli sunna wal jamaa mhm. bi ñuy askan al imam abul hasan ashari mhm. nga xam ne moom daa yeesal la fi yonent bi bàyyi woon sallallahu alayhi wa sallam mhm. ginnaaw mi tam mag yi borom xam-xam yi mag yëpp ànd ci ñu ñi ci ant ñi lu mel ne maturidi xam nga dëppoo ak ñoom ahlul athar it am nañ wuuteeg ñoom nañu tuddee ahlul hadis léeg-léeg ñenn ci ñoom mm-hmm. mooy xanaabila yi mm-hmm. am na lu ñu wut ñoom waaye bëriwut mm-hmm. nga xam daal ma nañ ne daal mooy tawxiid bi nga xam ne ci la jullit ñëpp ne rek li ëpp ci jullit ñi ndax saafi'i yëpp ci lañ ne maliki yëpp ci lañ ne axnaaf yëpp ci lañ ne ndax maturidi ak ak a ashari yëpp benn lañ li ñu wuute ay ay baat lay doon fukki baat fukki mbir ak ñett rek la ñu wuute loo xam ne masalan ci kii day tudde mbir mi ixtiyaar kee tudde ko kasbu am na ko ko boole ci benn téere wax ne maanaam loolu wuuteeg baat rek la hmm. moo tax yooyu amul solo loolu nag sëñ bi jàngal na ko waaye jàngal nañu itam tawxidul aarifina billahi hmm. te mooy nit yàlla itam hmm. ñoom dañoo yëmul ci tawxid bii nga xam ne la ak i wax yu lay jàngal di la ko di la ko xamal di ko sax dañ koy dund ba mos nag caf kak tawxid loolu it ko dafa am na ñu tudda moo dam nañu tawxidul aarifina billahi ñaar yooyu nag buñ ci bëggoon a dugg day gën a dugg day gën a kii waaye waaye mën nañoo gën a yem rek ci jëmmi sëñ bi maanaam ni mu feese dell ak tawxiid ni mu mag màggale suñu borom tabaaraka wa taala nga xam ne fi ne bi muy wax murit bi lim njëkk a war a xam da caa wax ne li jiitu ci li nga war a xam lu mooy ni ngay ni ngay def ba suñu borom màgg ci sa xol awaluha maarifatun mm-hmm. bi adama daatil jalili mm-hmm. daatuhu muadama suñu borom màgg ci sa xol ni def ba suñu borom ba suñu loolu mooy xam-xam bi war a jiitu ci ci ci ci ci ab murit mësta nongu nag mm-hmm. ku boole suñu borom ak dara moom man Sëñ Tuubaa mooy xam ne moom moom ci moom dara wax ne uwaxidullaha wa lastu ushriku shay'an bihi xiina si waa yushriku maanaam damay wéetal suñu borom te ma ko booleeg dara ñi nga xam ne ñooy wax nekkoon ci wetam nekk ci géej gi di wax yàlla ñaar ñett loolu da ko metti woon fi ne mm-hmm. gis nañ mm-hmm. tontu leen ba tàyyi mm-hmm. fal taabudu rabbakum wal tatrukul adada hmm. maanaam jaamu leen seen yàlla waaye nag lim bi ñaar ak ñett loolu moom moom mënu ma mënu leen ko <laughs> mi ngoog mi ngoog mi ngoog nga xam ne leen ba tey hmm. lim bi moom hmm. dama bëgg ngeen teg ko fi suuf te xam ne suñ borom moom benn buur la boo xam ni du ñaar du ñett waaw allahu jalla ilahun la nadira lahu qatan wa man bisiwa za ja qad fanada maa ngi si ne xasida gum tënk laa ilaha illa nga xam ne wax na ci ba tey ca mujj ga nag la leen wax ne ilahuna ya nasara jalla an mathalin tuubu lahu watruku taslisa wal awada bàyyi leen lim bi dégg nga am na beneen fal taabudu rabbakum wal tatruku al adada jaamu leen seen yàlla waaye nag lim bi bàyyi leen ko dégg nga lahul baraya lahul afaalu jumlatuha bil mulki walhamdu fi kon jëmmi tawxid maanaam noonu la demoon ci sëriñ bi nga xam ne sëriñ moom mës ku boole suñu borom ak dara dinaay wax ne kenn rek lañ gis sëñ bi di ko moolu mooy kuy boole yàlla ak dara <laughs> gis nga day wax ne uffin li qawmin salla suuka yaa mbas mbas ak koo xam ne mm-hmm. day wax ne day day boole suñu borom ak leneen xam mm-hmm. na feneen fu wax ne sax eh, li mm-hmm. man yanmi ila llahi al ahad alsamadi alfardi almubidi man jaxat tawaludan fa qul huwa allahu ahad tasrifuhu anniya min yowmi al tabban lahu tabban lahu uffin lahu waylun lahu waylun lahu tabban lahu xanaa gis nga moolu yooyu mm-hmm. tabban lahu mm-hmm. tabban lahu mm-hmm. uffin lahu waylun lahu waylun lahu tabban lahu yooyu <laughs> yëpp da ko boole mu ay moolu yoo xam ne da koy moolu ki nga xam ne day boole suñ borom ak dara dig leen itam mbugal ak metit ak lu ne mu ne waylun wa niqmatun wa dayqun wa dalaa li kaafirin wa balaa li kaafirin wa mushrikin lan yuqbala waaw nga xam ne musula Euh, bëgg ku boole suñu borom ak dara waaw nga xam ne dara wax sax ne maanaam kii boole suñu borom ak dara kooku daa daa xamut li xew waaw yaqiiniyal yaqiinu an usrika bi waaw yaqiiniyal yaqiinu an usrika bi lii xanaa kullu mushrikin lam yu lam yantabi. Mm-hmm. waaw loolu loolu la xanaa lii da ci da nga ciy gisee mu shirk ni mu bonee de. waaw shirk moom. moom waaw yaqiniyal yaqinu an ushrika bi. Mm-hmm. shay'an fa kullu mushrikin lam yantabi. voilà nga xam ne tey wax nee na sama yaqin ci moom moo dox sama digganteeg may boole suñu borom ak leen ma shirk la wax sax mooy boole maanaam jàpp ne beneen buur am na bu ma yàlla. waaw loolu nag bokkut ak yu sew sewaan yi nga xam ne hmm. ay mbir la yu dagan hmm. dugg ci buntu fiq hmm. ñu di ko bëgg dugal ca kii ngir génn nit ñi ci diine ji loolu ay caaxaan doom yoo xam ne bokkut ak lii sëñ bi wax moom maanaam sirk bu ñu ko waxee mooy jàpp ne beneen buur am na bu may yàlla dégg nga maanaam loolu mooy mooy mooy mooy di ko lim di ko lim moo xam benn ñaari buur ñett maanaam buur benn la mi nga wax allahu jalla ahadun allahu asamadu alladi huwa loolu la sëñ bi kenn la benn buur la du ñaar du ñett kon loolu mooy gàttalu maanaam tawxiidu tawxiid ak ni ko sëñ bi fonke woon boo gisee gën jaa néew lim ci bind mat na téeméeri téere ci tawxiid ñaar fukki téere xam-xamam bind na ko ci mhm. xasida yi nga xam ne xasida tawxiid la itam mhm. am na mbokk mu ci wàññi mhm. loo xaw dégg nga juróom-ñett fukk daanaka juróom-ñaar fukk ak naa nga xam ne téeméeri téere daal bind na ko ci li ci tawxiid yoo xam ne yëpp mënees na ko mënees ko teg bët mhm. yëpp mënees na maanaam maanaam ñaar fukki téere yii mhm. nga xam ne téere xam-xam la mhm. euh, daayiratu étudiants euh, euh, yi nekk Maroc mool nañ ko moom ba mi ngi tege bu dee nag xasida yee itam seen jiili moom sëñ Cheikh May mhm. moom it dajale na ko mhm. nga xam ne lépp mën nga ca ba bat bokkut ak ya nga xam ne xamuñu ko moom mhm. kon loolu mooy gàttalu tawxiid eh, diggam ak sëriñ bi waaw eh, tawxiid jooju nag <coughs> mel na ni eh, xam-xam bi li ci jëkk feeñ mooy li nga wax ne mm. borom Tuubaa dafa ne sunu borom da koo moomale tawxiid mm. te mel na ni yi yàlla bañ yëpp mm. daa dajaloo ci bokkaale ah. fa la tàmbalee hmm. mooy seen ndey waaye fa lay rogalaate jëm ci hmm. bépp jëf boo xam ne yàlla gërëmu ko hmm. kon euh, mel na ni sëñ bi moom suñ borom jox na ko sange soo xam ne jox na ko kaaraange goo xam ne xëy na ku ku mu neex nga tuddee ko tawxit kon waaye nag naka la ko jëfee ak naka la ko naka la ko feeñalee ci mbindam ci diggam ak boroomam waaw kon loolu tawxiid mënoon nañ ci wax lu bare bare bari mm-hmm. eh, waaye mm-hmm. ngir waxtu wi njëkkante waxtu wi mm-hmm. day ñëw ci ñaareel tom bi te mooy jaamu yàlla gën ni ko sun ni suñ borom jaamoo ni sëriñ bi jaamoo suñ borom tabaraka wa sëriñ bi xeeti jaamu yàlla yëpp da ko dund ci anam nga gën a kawe nga gën a yaatu da njëkk mooy ibaada mooy jëfi kaw yi loolee da ko dund mën nañ ne dundam gépp sax day jëmmal mhm. li mu wax ne iyyaka na'budu mhm. wa nasta'inu fa innaka al-ma'budu wal mu'inu mhm. diggante bu mos koo génn ma jaamu suñu borom te bàyyee ko boppam te doyloo ko te wëkkirlu ci moom te eh, mosula mosula mosula nangoo féeteeg keneen ku may moom waaw danaa wax sax ne walastu a'budu dawaaman ghayraka an dama dul jaamu keneen ku may suñu borom moom loolu moom moom daana wax sax ne jaamu yalla mooy sama diine ni mu ko waxee ne tawxid mooy sama wax na ne bëgg yàlla mooy sama diine wax na ne jaamu yàlla itam mooy sama diine diini ya ibadatu ilahi naasi waaye dalaa wax ne itam léppam moo maase di jaamu yàlla kulliyati abidatun lillahi an léppam daa maase di jaamu sun borom tabaraka wa taala maanaam ay yëngutoom ak ak dalam ak léeg-léeg mu ne naw mi qiyaamun ka awraadin kitaabatuna ak xalaalan yaqi kulli kulli musibaati maanaam nga xam ne maanaam ci biir ak jaamu yàlla la doon suñ suñ mag bi mooy koo xam ni mm-hmm. nekk na ci kaw suuf bañ noppi koo gis mosula mm-hmm. eh, julli ci lu ak laab mosula mm-hmm. tiim lu may ñaari yoon te bu ci ne maanaam bu ci ne tiim lu may benn yoon bokk benn yoon la ma tiim ci dundam te julli gune da koy jàppal mosula julli ñaari julli ci menn jàpp mosula julli ñaari julli ci menn njàpp mhm. moom dala wax ne man du ma jëfandikoo ay seel du seel yi diine du seel yi aada sëñ Basiru nee na mu teg te diine mooy menn njàpp nga julli ci ñaari julli farata mhm. moom julli gune farata june mhm. koo xam ne itam mosula julli sax ci digg waxtu wi njël benn waxtu la daa dulli julli am na sëñ Basiru nett na benn naaru gànnaar bu mu nekkaloon boo xam ni waxtu wi daa jot rek sëñ bi jóg tàmbalee bëgg a julli mhm. ne mu ne ko te nga xaar ba ci digg waxtu wi ndax tàngoor yooyu mu ne ko man damaa bëgg fu suñu borom diglee rek ma defee ko foofee daa ne mos ta nongoo julli mhm. ci mujjug waxtu fi ne mhm. mooy jëmm joo xam ne itam daa dëkke woon koor daa dëkke woon koor te ak doogam amul solo moom ak lekkam ci moom amul solo fi ak lekkam amul solo te itam noonu la bare woon ay naafila fi ne tey gis nañ maanaam ginnaaw tamit sëñ Basiru ne daana julli ñaar ñaar rakka yoo xam ne mhm. Baqara ak Ali Imran la ci tari danga xool ñim yar rek mhm. sëñ Mamour a gis nga guddi gu ne téeméer rakka la daa julli goo xam ne boo xam ne lam cay alxuraan jëpp la ci tari ba jeex sëñ Daam Abdourahman Lo alxuraan jëpp la daa naafila ci guddi gu ne mhm. ci ñaar rakka waaw sëñ Moussa Diop mi gis naa ci téeréem bi al umda mu wax ne sëñ Modou Xayri Jaxate ne Amsatu Jaxate wax na ne maam Cheikh Fall mhm. alxuraan jëpp la daan nafila ci fukki rakka waaw te ñooñu mooy ñi sëñ bi yar mhm. sëñ bi nag moo leen ci yar fi ne tey sëñ bi la daan wax ne mhm. maanaam nelaw guddi loolu ginnaawam lañ ko xam gan la ci yoon wi <laughs> ndax waxtu wu ne mën a laawoo te du la woo ngay biin biini di ak ak ak wane ay nelaw moo tax sëñ bi mi ngoog moo tax sëñ bi mooy jëmm joo xam ne mësta juyoog ndigalul suñu borom mm-hmm. wax na ne lam yataraddat kalkali walam yamil jismi mm-hmm. ila maasiyatin waaw ah, walam amil mm-hmm. mës la def lu naqari suñu borom tabaraka wa taala mës ta eh, jàng jëm ci lenn lu naqari suñu borom tabaraka wa taala loolu mooy genn wet gi mooy jëfi cër yi waaye xol bi itam yëg-yëgi xol yooyu moom moo gën a naqaree da leeral ak génne ba mu ba mu moom boppam. waaw xol daa daa daa moom boppam. Mm-hmm. waaye mas na koo xamee ci lenn. Mm-hmm. ci misaal sëñ bi. Mm-hmm. Euh, ubudiyam mooy yitteem jëpp moo doon nekk abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. maanaam ubudiya mooy. ubudiya mooy xol yi yëg yàlla ci xol. maanaam yëg njaam gi ak bëgg yàlla. ak dund ko. sa di la ci aju nag ca suñu borom ca diggante suñu borom lañu tudd ubodiya moo gën a xóot moo ubodatu boog moo gën a xóot moo gën a xóot mm-hmm. noonu la ko yenn borom xam yi xam le mm-hmm. waaye ci misaal ñaan na ba tey suñu borom jàppe ko abdullahi mm-hmm. abdullahi yombut mm-hmm. fi ne abdourazaq bari na mm-hmm. jaamub yàlla miy joxe wërsëg jaamub yàlla miy joxe dégg nga daraja jaamub yàlla miy joxe am koom jaamub yàlla miy maye ak mi yor nag miy jéggale mi yor ajana ak mi yor mi yor sawara nga xam ne tey jaamu gi daa waaw <laughs> te fi ne yow mën ngaa tudd neneen mën ngaa jàpp ne leen waaye fi ne ci dëgg-dëgg yow maanaam yàlla mi joxe aj mi mi mi mi yor àjjana rek ngay jaamu mm-hmm. ndax yow mm-hmm. àjjana tey bu suñu borom ne woon amul dootoo jaamooti moom moo tax ngay jëf mm-hmm. waaw wala waaye léegi buntu yooyu abdullahi nag allahu nag mooy tur wi boole tur yëpp nga xam ne mooy jëmmi suñu borom ja nga xam ne maanaam maanaam boo maanaam xam nga razaq mooy ki yor wërsëg nga ne bu du woon kuy sàkk wërsëg mën nañu bañ a xam tur woowu dëgg la euh, turu jëmm ji dëgg dëgg nag mm-hmm. mooy allah mm-hmm. abdullahi moo tax kooku ci alxuraan kenn la ko suñu borom tudde wa innahu lamma qaama abdullahi mm-hmm. mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sayidna isa kookee nga xam ne da nga koy jaamu hmm. te intérêt bi yëpp mooy jaamu ko waaw suñ tubaab nag mooy koo xam ne da doon jaamu jaamu koo xam ne mhm. yàlla kese kese moo tax maanaam dëkku ci woon leneen hmm. te loolu dana gën a leer ci ci ci kanam lu lu ñu nangul koog njaam gi rek lu ne moom yàlla yàlla waaw maanaam li ñuy xubbu daati loolu muy mhm. mhm. a kawe xam nga nekk na nga abdullahi googu ubudiyya boobu mm-hmm. gis nga da koo ñaan ba tàyyi ba mm-hmm. suñ borom may ko ko mm-hmm. ci gàttal rek ngir tënk mu wax ne sammaytani qataan bi abdikal xadim leeral na ko sax minanul baqi rahman na xasida gum tudde minanul baqi rahman nga xam ne da ci sarxu dégg nga way yim tudde ismatu subbaan da ko cay way waaye wax na ca ne yàlla da ko def defal tawféex mu sax ci bëgg yàlla di ko jaamu di ko xeeñtu di ko liggéeyal di ko sant bu mujj nag suñu borom jàppee ko muy abdullahi wa xadimu rasuli waaye nag li lay xamal ne loolu maanaam mooy li neex sëriñ bi mooy mooy yàlla jàppe ko muy ab jaamam <laughs> daa mel ni daal su ma la déggee eh. bi moom daa xam ne daa daa xam ne am na boroom waaw te boromam boobu it yëgal na ko ne maay sa boroom waaw mu daal ne man daal eh. lépp lu ma mën a def ba sama borom nangul ma ne ab jaamam laa loolee ci laay ne amul sikk daal di xool yi nga xam ne it mooy bunt yi ngay wax Abdul Razak Abdul Afour ak yooyu mu ne yii sax su ma ci jëkkee day mel ni daa am lu ma bëgg ci moom man moom rek laa bëgg waaw kon naa ko jaamu bu mu yëg ni ab jaamam laa ak itam maanaam maanaam maanaam bànneex bi ne ci mm-hmm. yëg yàlla mm-hmm. xam nga am na ñoo xam ne mun maanaam tey yow sëñ bu mag bi nga xam noonu nañ ko bëggee mm-hmm. tey boo ko gisoon mm-hmm. yàlla defal la tawfeex nga mën koo liggéeyal mm-hmm. xidma boobee nga koy liggéeyal lu mm-hmm. metti metti doo ko yëg ngir cofeel gi cofeel googu nag moo ne ci mooy abodiye bi nga xam ne moom la moom la doon yëg nga xam ne fi ne tey ci misaal seereloo na ko ñëpp ne loolu lu yéemu la maanaam dañuy gis léeg-léeg mu ne mu seereloo ko suñu borom washhad li yel ma bi kaw nii abdaka xadimahu nag ma ko seerel waaye léeg-léeg mu ne yaa jumlatal xalqi min def yëpp ishadu lii yow ma fiihi yaxuusul mujrimuuna law bi kawniya daarayni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi bindeef yëpp maa ngi sàkku ngeen seeral ma ne man kat mhm. jaamu bi yàlla la bu liggéeyal jaamu bi yàlla boobee di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhibba kulli muslimin wa muslima mhm. mubghida kulli mujrimin wa mujrima katabahu ahmadul asaraati léeg-léeg mu seeraloo ko nasaraan yi mm-hmm. ne inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki muttarra tayaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wa annani ma ziltu daa mm-hmm. tabarru'i min kulli man bil kufri zu tajarru'i mm-hmm. nasaraan yi maa ngi ci seen suuf ci seen biir waaye maa ngi leen di xamal ne kat na ma seeral ne man kat na ngeen xam bu man kat jaamu bi yàlla la buy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu dañtalu ci lépp lu di kéefër wala muy ñimee mhm. weddi suñu borom tabaraka wa taala waaye léeg-léeg mu seerale ko sax géej gi ba mu mhm. nekkee foofu ca maayom ba gis nañ mu jàkkaarlu géej gi wax ne mhm. li yashhad bi kaw nii abda man yaghfiru dhanba wa kaw nii xadimal mustafa baxra maayom ba maanaam yow ba géej gi nag ma seel ne man kat jaamu yàlla laa tàmmal nag di dénk géej gi nag ne ko yow it na nga nekk ci loolu mm-hmm. ayaa baxru waxit laa tusallis fa rabbuna taala an it taslisi akrim bihi rabba maanaam géej gi yow na nga wéetal suñu borom mm-hmm. bul topp gaa yi ci li ñuy wax gannaaw bi ñu waxee ci tawxid bi ak ci sëriñ bi jëf gi mu ko daa jëfee ci mboolem ay yëngatoom ak i cëram ak i jëfam ni mu ko daa feeñalee ci xolam bëgg gi mu sunu borom tabaaraka wa taala ko ne ab jaamam la mm-hmm. ak mbooleem ni mu ko daan jëfee ak di ko di ko di ko feeñale ci bindam ngir rekk benn intérêt bi mu am muy sunu borom tabaaraka nangul ko ne ab jaamam nga loola nag ku ci yàgg mu mm-hmm. faw dara fekk la ci waaw ku yàgg ci tawxiid yàgg koo jëfe ci say cër yàgg koo bëgg ci sa xol nga mm-hmm. xam ne sa mbébét sa yéene mooy sunu borom nangul la ne ab jaamam hmm. loolu kat yaakaar naa ne hmm. sunu borom faw rek mu am lu mu feeñal digganteem ak jaamam boobu jërëjëf sëñ Murit hmm. jërëjëf eh, ni nga ko waxee sunu borom tabaaraka wa taala moo mas di nekk di yittee sëriñ bi sëriñ bi moom mësula nangu ko ko jàppe lenn mhm. lu may jaamu bi yàlla buy buy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na raqiib ak atiid malayka yi bind jaam jëfi jaam ñi mhm. loolu rek lañ may bindal mhm. inni ya abdullahi jalla wa xadim lil mustafa alladi atilaauhu yaduum yashhadu lii bidaa raqibun wa atiid fii kulli yawmin inda dil arsil majid wax na darajaam ji gën a kawe mooy nekk di abdullahi wa rasulihi darajati kawniya abdullahi xadima abdihi ibni abdillahi di jëmm joo xam ni itam euh, ubudiya boobu yi mu mu doon dox. Mm-hmm. mu doon dund. Mm-hmm. li ku gën a mën a misaal mooy mm-hmm. ñaan yi mu doon ñaan suñu borom. bu waxtu amoon bañ ñëw ci ñaan di gëm ak sëriñ bi. da gis ne ñaan gu ànd ak nongul yàlla la ak toroxlu ak bëgg yàlla. ak nga xam ne ñaan defu ko woon ngir sàkku sax dara wala ngir xëcc dara waaye da ko def ngir. dafa bokk ci jaamu yàlla dafa bokk ci jaamu ñaan ak jaamu yàlla la. ñaareel bi itam ci biir ñaan nag ci la ubudiyaam di feeñe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg koy misaal lu bari ci xësi rek euh, matlabul maqaril asna nga xam ne tey dangay gis muy wax ne yaa sayyidi euh, maanaam loolu mën nañ ne mooy munaajaat maanaam jafa am lu ñuy wax duwaaw am lu ñuy wax munaajaat mhm. diyaale googi nag mhm. itam dafa bokkon ci li nga xam ne moom da ko farataaloon moom mm. sëñ bi moom daana fanaan guddi ba mm. guddi ga jeex di déyaale ak suñu borom tabaaraka wa taala sëñ Modou Khary sëñ Modou Khary mm-hmm. ci eh, ñi jege sëriñ bi ca kër ga mm-hmm. na ne gis na sëriñ bi julli gee tàllal loxoom di jaa di ñaan di déyaale ak suñu borom ba ba fajar jot sol lu mm-hmm. gis déyaale yooyu fees dell matlabul maqaral asna bi mu wax léegi dañ mhm. gis mu wax ne yaa sayyidi mhm. ana al faqirul faani wa innani al abdul xaqirul jaani mhm. ana al laimul baisul miskiinu ana al daiful jahilul madiinu ana al kasuulul aajisu saiimu ana al baliidul mujrimul muliimu ana al akuulu wa ana al battaalu wa innani al naaimu wal qawaalu wa innani al xariisu dul tifaati noonu la ko toppee bu gudd di wax rek maanaam ñàkk a gis dara ci boppam mhm. nangul yàlla nga xam ne yàlla la gis ne mooy lépp moom nag jaam la bu doye bu néew doole mhm. bu aaja ndimbal mhm. maanaam toroxlu googu loolu mooy mooy mooy mooy li ñuy wax ubudiya dëgg-dëgg loolu nag moo fees mbindam nga xam ne léppam da koy jox suñu borom tabaaraka wa taala ci misaal tuub diggam ak tuub boo ci duggoon da ngay gisaat itam ubudiya gu kawe gum doon dund nga ne moom xasida yi jéggulu yi mhm. xasida yu yéemu la ci jéggulu mhm. fa qultu daa tawbatin toxfatul awwaa mhm. fa qultu daa tawbatin lillahi min nadami astaghfirullaha mujril fulki fi zulami ala ubabi min altayaari multatim jismi daifun li asqaamin taxullu bihi wa baana durri wa qalbi gayru muntabihi fa qultu mustaghfiran noonu la ko toppee kaada tarinu ala qalbi dunubu wa an xawfin wa nuuri lhuda aaqathu kulla zaman fa qultu taaliba gufraani algafuri idan astaghfirullaha gafaara dunubi liman bilinkisaari ata wa dulli wa nadami maanaam waxi ni jégglu yoo xam ni ak toroxlul suñu borom yoo xam ni yu yéemu la ci ubudiyya kon ubudiyya moo yëg-yëgi xol yooyu day daa feeñ te fees dell ci ci ci ci waxam nga xam ne léeg-léeg sax mu wax lu ñuy wax dullul ubudiyya maanaam torox tàngal ak ak ak ak doye dëkk mhm. ak njaam mhm. maanaam torox tànge ak njaam ak yëg-yëgi maanaam Euh, ñàkk yi dara ci sa bopp mhm. ak woyof fi kanam ki nga bëgg mhm. loolu dafa am bànneex bu ci ne bu ñu wax mhm. dullul ubudiyya loolu nag la wax ne dulliya lil fardi alladi lam yalid yi walaysa mawludan ataaba xaladi wakiirlu itam gi mu wakiilu woon suñu borom lépp mu bàyyi ko suñu borom nga moom dara wax sax ne man sama mbiri bopp moom du ma ci am ak jañ ak ñoddi mhm. lépp lu ma suñu borom defal rek gërëm naa ko la shakka anna kullama adxaltani fiihi mhm. fa xayrun liya yaadal minani mhm. lépp loo ma dugal rek lu baax la ci man lépp loo ma génnet wala loo ma xañet moo gën ci man noonu la doon doxee boole ko itam tafwiid mooy féetale léppam suñu borom tabaaraka wa taala nga xam ne lahu ufawwidu amri haahuna wa gadan boole ko itam doyloo suñu borom nga xam ne dawul jàmbat maanaam lenn daw ko jàmmat kenn ku may suñu borom tabaraka wa taala inni ila naafiil wahaabi muftaqirun mhm. waaw walam akun li siwal mugni mhm. bi muftaqiri astaki durra lil maxluqi mujtadiyan dawu tàllab loxom bi jëme ci kenn ku may borom mhm. noonu la meloon ci li ñu ubudi ubudatu itam maanaam gërëm loo suñu borom gërëm ko itam sax itam ci loo xam ne mooy gërëm loo suñu borom tabaraka wa taala nekk noonu itam la saxoon ci dëgmal suñu borom ak dox wuti ko fi ne aqbaltu da nga gis mu bari lool ci ak wajjahtu mm. Mm. gis mu bari lool ci biir ci biir ci biir xasida yi mm. nga xam ne suñu borom rek la dëgmal dox bi itam nee na fenn rek la jem bi muy dem ci géej gi tubaab bi jàpp ne dañ ko jàpp da wax ne asiru ilal wahaabi jalla jalaaluhu maanaam man sama dox ci suñu borom la jëm asiru ila dil barri wal bahri aabidan mm-hmm. wa lastu ilal fujjaari awdu asiru mm-hmm. maanaam jëmuma mukk ci keneen ku ma yàlla yàlla rek moom fan fa la ci laa ànd ak itam euh, euh, maanaam yi li ñuy wax tëdd biir tëdd biir mooy lijjantil sa bopp lijjantil xel maanaam da wax suñu borom ne ko man lépp loo ma tànnal lijjantil ma ko mbir mu ne loo ma la ma ca defal rek loolu mooy li ma gënal mooy li wax tëdd biir bi tëdd biirika bi tëdd biirika lii waaw mm-hmm. ah, mi ngoog nga xam ne moom daa dañtalu woon ci mboolem luy kattan ak mm-hmm. pexe mm-hmm. fi loolu moo bari ci mindam nga xam ne xarajtu min tadbiri nafsiya liya ila alladi dabbartahu li ya rabbiya mm-hmm. a dama génn ci sama tànnuk bopp ak sama lijjanti bopp jëm ci yow mm-hmm. sa sa sab lijjanti mm-hmm. noonu la meloon itam ci jox léppam suñu borom fi ne moom Sëñ Tuubaa mooy ko xam daa jàpp ne lépp yàllaa ko moom waaw fi ne kulliyati jaaltuha lillahi wadiatan léppam rek léeg mu lim ko di lim ay cëri bawam ruux geeg njaboot geeg doom yeeg ba ci geesu gi ak dund geeg ruux geeg dégg nga mm-hmm. lillahi rabbil alamina ruuxi mm-hmm. wa jasadi wa jaada bi tasrixi mm-hmm. xol beeg yëg-yëg yeeg làmmiñ lisaaniya wal awsaalu abdan lahu bikum ana cër yi tam da ko daal lim benn wax ne lépp suñ borom moo ko moom sama waxanteeg samam xel dégg samay xalaat samay xalaat yi toq ci xel mi hmm. yooyu yëpp maanaam maanaam delloo naa ko suñu borom jox ko ko addiyee moo ko moom lépp ci man hmm. ay pas-pasam ay yéeneem lahu dahra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukkali hmm. noonu la ko tam xalima yeeg jaamu yàlla geeg farata yeeg naafila yeeg lépp lu ci mën naa ci indi ay tex yoo xam day wane da koy delloo ci suñu borom ñàkk ki nga xam ne moom la moom la ak dem beeg dikk bi mm-hmm. itam lahu dhahabi wa bi ruju'i mm-hmm. nga xam ne léppam da koo delloo ci suñu borom ak yëngoom ak dalam mm-hmm. waaw euh, mooy jëmm joo xam ne itam fi ne mësta sàkku ci kenn lenn lu ma yàlla loolu da ko jaayantoon moom waaw ci kenn lenn kenn ku may yàlla mës a sàkku ci moom mm-hmm. ne li ko jotaloon Touba bi loolu la am na loo xam ne bu ko sàkkoon mësoon na yàgg ñëw ci dëkk bi Touba mm-hmm. bi mu nekkee njëreem gi waaye lenn rek moo teewoon mu mën fee ñëw mooy nanguut a sàkku ci Touba bi ne damaa a dem Touba mm-hmm. te Touba bi fii ak sàkku ko duñ ko may gis nañ ci livre lettre euh, téere Ba bi mu génne lettre boo xam ne borom daal mooti moo a signé ak sëñ Massamba ak euh, sëñ sëñ ak ñu bari ci mag ñi yaakaar naa tudd nañ ci borom daaru sax borom daaru moom ma nga ca ak sëñ Masamba maam Cheikh Anta yaakaar naa ma nga ca mhm. ak sëñ Afe ak sëñ nga xam di sàkku sàkkul euh, sëriñ bi ngir ñu may ko mu ñëw Touba te ñoom ñu garanté ko seen ah garanté ko waaw mi nga ko te loolu boobu gis nga tubaab bi nangu ko mhm. ci misaal ma jox la misaal mu gën a leer mooy dëkkam yi nii gis nga dëkk yëpp Touba maanaam euh, dëkki suñu borom la mhm. Touba moom am réew la mooy mooy li boole dëkk yëpp waaye gis nga mas na koo delloo ci suñu borom ndax garab la gu nekk ci àjjana mm-hmm. waaye gis nga dëkk yim fi sanc yëpp daarul quddus mm-hmm. daarul alim al xabir mm-hmm. daarul muati daarul mannaan daarul minan daarul rahman daarul karim daarul qadim nga xam ne dëkk yëpp da koy delloo kër yi suñu kër yàlla nga xam ne yàllaa ko moom lépp da ko daa askan suñu borom fi ne li ko yàlla tawféexal ci ay mbir yu bare bari la tey ci misaal moom ci dundam mësula def lu naqar yàlla mhm. mësula jege li ñu wax lu xaraam mbaa lu ñu sib déedéet waaye loolu day wax ne suñ borom moom ma ko muñ loo mhm. sabartani anil xaraami qablu mhm. wa fitnatu nnaasi mahad wal kablu sabartani an kulli makruhin la daa kaw ni gariban wa atabtal xalada noonu la koy toppe nga xam ne day wax lépp suñ borom moom a ci dimbali ba ma man ko nga xam ne itam mhm. fi ne xam-xam bi mu am mhm. moo ne damaa jàng mhm. waaye day xam ne suñu borom moo ma ko xamal fiqhu malik bi am ak ak ngir yi ni mu ko xereñee yëpp gis nga day xam ne war rastani fiqa abi xanifa noonu la koy toppee damay bañ mu gudd làkku arab yi itam gis nga allama ni naxwa maal xaru maal man qaada lil aadama fii xaridi maanaam suñu borom moo ko xamal nga xam ne lépp da koy delloowaat ci jëmmi suñu borom tabaraka wa taala ba ci mucc gi mucc ak jéem gi muy jéem a teete murid yi ngir ñu mucc najaati wa in jaa yi wa xawsi istiqaamatan uxaawiluha billahi waaw mi ah, nga xam lépp ci suñu borom da kon kooku wàllug eh, maanaam ba pare nag fàddu nag ci sun maanaam jeex na ci sun borom mm-hmm. nga xam ne ribtu anil akwaani fil mukawwini mm-hmm. ak bil mukawwini wax na ci doore nga xam daa bàyyi lépp fàddu wëlis leneen lu may sun borom tabaraka wa mm-hmm. nga xam ne ma nanguwutoon sax gis keneen ku may suñu borom huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin mbir mu ne yàlla la cay bàyyi xel moom la cay jëflanteel moom la cay dàkk moom la cay xool moom la cay gis moom la ciy moom la ciy jëflanteel itam mm-hmm. mbir mu ne kon kooku mooy kii bu ñëwoon ci bëgg su bëgg gi mu bëgg moom kooku moom moom ak géej la mënoon na waxtaan mm-hmm. te mooy moom yàlla da ko mooñaale ak bëgg suñu borom sëñ Basiru nee na mm-hmm. ci njëlbeen nga ba muy nekk li ñuy wax tuut tànk fuñ mas a dem wut na ruqus boobam joo xam dafay dafay beru di jaamu yàlla ndax dafa feeñ rek yàlla eh, sànni ci xolam leer gu bëgg yàlla nga xam ne moom mësta bëgg leneen lu may yàlla subhaanahu wa taala ñaan na maanaam sotti cofeelam ci xolam mm-hmm. loolu bari na ci mbindam mm-hmm. eh, wax ne sax mooy diineem diiniya mm-hmm. diiniya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan alayhi sarmadan maanaam nga xam diineem mooy bëgg yàlla subhanahu wa taala ahbabtu rabbal alamin maanaam bu nee na suñu may ko cofeel googi gis nga na ko wax maanaam ahbabtu rabbal alamin léeg-léeg sax mu giñ hmm. yamiinu rabbiya inna rabbiya ahab lii min siwaahu wan nabi hmm. baadul hmm. nga xam ne gis nga ci njëlbéen nga ba nga xamee ne waa Kajoor dajaloo nañ bëggoon ko booleeg buur bi gis nga lam leen tontu qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaaiza tuxni kulla ma xiin fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi yàlla doy na ma doyloo naa ko te boobu adduna ak di ci lañ ko doon woo jëm ah, xéewali gis nga maanaam eh, ba nga ne sëñ Mamour Anta Sali ngi fii itam am na nay jamono ñu jàppe ko ko koo xam ni xel mi neexut mhm. waaye gis nga boobu da wax ne qaalu safihun li sarfi anhumu basari bayit ba ci topp di wax ne xaalu safihun li xobbi xaaliqi mhm. maliki bëgg ma bëgg yàlla mhm. <laughs> moo tax maanaam ñu jàppe ma waaw mi ngoog mi kon yàlla moom moo mas di ak bëggam wax na ne huwa muraadi laa uridu gayrahu maanaam moom rek laa bëgg moom rek laay dàkk awma leneen lu may bëggaat leneen sax mu giñ ko ni mu ko waxee wallahi inni xillun lil ilahi bihi xibbun lahu duuna kasbin eh, fii ujzaahu man daal sëñ Ahmadu waaw ah. daa mel ni li ngay wax ah. eh, day am lu mu lu muy misaal ci sama xol ah. mu mel ni maa ngi door a gën a dégg li ngay wax mm-hmm. eh, ci ni ma ko déggee rek mm-hmm. ci nu gën a simple loo xam ne damaa bëgg kenn ku ne bàyyi ci xel mm-hmm. mooy ci njëlbeen borom bi tabaaraka wa taala nga ñu présenté. boroomu sëriñ bi. mi nga xam ne moo sàkk lu dul moom lu dul yàlla rek jëfi yàlla. yàlla moo mii nag. Hmm. ci uluhiya hmm. ci rububiya hmm. ak ci sifaat yeeg asmaa yi. lépp. mu mel ni sëriñ bi hmm. ku dellu it ci téere boobu nga xam ne moom la sa wayjur yu bàyyi woon fi te nga génnee ko àddina sépp jot ko njëlbeenu téere bi li muy jàngale mooy sëñ bi bi mu jógee hmm. doon jaamu bi yàlla rek la bëgg hmm. te mooy lii ngay feeñal jógtee tawxiid ci xam ko ak jëfe ko ak mu nekk ci biir xolam ak mu mu bëggit boroomam boobu yëg ne kat jaamam bii mi ngi koy jëfe xam na ko te bëgg na ko ko nangul waaye borom bi daa mel ni ci biir téere bi eh, dem na ba yàgg mu sëñ tubaab di bind na yàlla nangul na ko ne ab jaamam la waaye nag daa mel ni ni nga ko misaalee ni ni ma la ko waxee day mel ni ca olohiya ba mu fëggee ci allah ba yàlla nangul ko ne yaay abdullahi mm-hmm. sunu borom mooy rahmaan mm-hmm. foofu it sëñ bi daa dem fëgg ko fa mu mel ni tey bayit yi am rahmaan ku ko indi woon. danga xam ne sëñ amul morom. amul sëkk amul sëkk rahim noonu. malik noonu quddus noonu. ba bu agsee ci tuub gi ngay feeñal. ni mu mel ni koo xam ne daa def sun borom lu mu ko warta def. déedéet. daa xam ne aji jéggalaakoon la. te mooy Abdullahi faw mu won ko ne maa dàq tuub ñëpp. amul sëkk moo dàq ñaan ñëpp. ci buntu yëpp ba ci ba ba noppi hmm. nga yëg ci lii ngay wax ni hmm. borom boo bii sañ naa jëfandikoo ab jaamam nu mu ko neexee hmm. saa bu ko tegee nattu mu sant ndax day xam ne ci boromam la jóge saa boo xamante ni wërsëgal na ko te jàpp na ne moom boromam dara waru ko ci moom cant ya day gën a kawe waaye moom daa mel ni njaam gi nib jaam di xeeboo di suufeek loolu daa war a naqari xam nga ci bu dee nit normal. waaye moom nag. loola daa neex ci moom. toroxlul sab soppe daa toroxlu ci loolu loolu loolu mooy bànneex foofu la yem. loolu boo ko seetee ci diggam ak boromam tey daa mel ni ku saroon nag. Mm-hmm. day mel ni day daal di wane ne loolukat kat lépp a waral mu sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. amul si kaw tàmbalee ko ci bu koy tudd. tudd mm-hmm. ne kooka kat mooy jaamu yàlla bu mag bi. Mm-hmm. moo tax ma sopp ko. waaye gis nga sëñ bi lii. boo ko bind sëñ bi bayit yi muy bind di tudd Allahu. kenn xam bind Rahman. ba mu àgg. kon lii dana doon lu kemaane kéemaane kéemaane ndax buntu bu ci nekk rek. sëñ Touba jaamu na ci boromam loo xam ne kenn mus ko caa jaam moo tax moo tax xam naa lépp du ci xaj waaye sëñ Tuubaa moom moom ku ku ku jeexoon ci bëgg suñu borom la kii sëñ bi nag am na ci ci sëñ amul sikk ku foofu lan daane ne waaye ma ma wax ne sëñ Basiru wax na ne mhm. am na tubaab boo xam ne bi ñi nekkoon fii ci njaareem mhm. am na ku mas a am jafe-jafe mhm. ñëw di ko wax sëñ bi di ko sàkku ndimbal di ko ca dig nag ne ko ba moo defee dina fexe ba ñu woyofal la kii ci France nanga mu ne ko daal yow mhm. fekkee da nga am yitte mhm. sàkk ko luñ ca mën ñu jàppalee la ko waaye man bul a xam sama yitte ndax man jenn yitte laa mas a moom rek a bëgg moom laa mas a di wut mhm. mosuma am jeneen yitte ba nii nga may gisee nii te fi ne nii nag am naa ci lu doy sëkk ah, moo tax sunu borom it maanaam bëgg gi mu ko bëgg jeexal léppam ci moom bëgg itam lépp lu taq ci moom ndax bëgg gi ko bëgg moo tax mu bëgg dégg nga alquranul karim li wajihil karimi ahbabtul kitab bëgg gi mu bëgg suñu borom mhm. moo tax mu bëgg diine ji mhm. ndax diine ji diine suñu boroma mhm. inna diina inda allahi lislaam bëgg gi mu bëgg suñu borom moo bax moo tax mu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax ndax ndawul suñu borom la tabaraka wa taala bëgg gi mu bëgg suñu borom moo taxoon mu bëgg jàkka yi Sëñ Tuubaa bërëb bu mas rek tabax na fa jàkk dégg nga eh, sunu borom it. Mhm. ni mu ko waxee woon rek. képp mhm. ko xam ni dox na wuti ko. Mhm. mu gàttandu la. gàttandu la man ataani yam si. ataytuhu xër wala tan gàttandu gi. gàttal gi mooy. da koo xëccal boppam. sunu borom da koo xëcc. ñaan na ba tey aati ka aati nii maa ngi lay wut si ma <laughs> <laughs> wax na suñu borom lool waaye suñu borom it nga daal di koy xëccal boom ba ko xëccee itam yëmu ci da ko jegeeñeel boom dégg nga ba mu àgg ca moom waaye niñ koy misaale waxtu yi du ko maye buur bu sell boobee bërëb bu sell boobee ña fay dox wuti ñu néew lañ ndax ñu bari dañuy yem rek ci xam ne yàlla am na waaye duñ dox wuti ko ñay dox ñu bari ci yoon wi la ñuy yem ndax yoon wi daa bari pakk mhm. ak i gàkk-gàkk ak itam ay kii ak ay xéewal sax yu mën a tëral am na ñoo xam bu ñu ba jub bërëb ba xéewal ya yañ gis ak zaarte yaa xéewal yi dañ naa fii la ñuy yem ndax nun dal ban dalee son son nan am na ñoo xam nag duñu yem ci loolu mhm. sëñ bi nag nee na man àgg naa mhm. ilaa ilaahillaahi qad wasaltu dégg nga waxan rasulillahi man fasaltu maanaam àggale na ma ba ma àgg ci moom waaye man nga àgg itam ba ca ba ba ca ba ca dëkk ba ba ca bërëb ba ba ca xadra ba te doo dugg. Mhm. dégg nga. Mhm. waaye nee na man dama jëlee ca fa ma nekkoon. Mhm. jege dugal ma ci biir kër gi. mooy li ma wax ne nazaani minal baraaya samadu. maanaam tapp ma féet jegeñal ma boppam itam. aawaaniyal muxni ilayhi bi karam. ndax ne suñu borom da koo jegeñal boom waaye fi ne mën a laa mhm. dugal ci biir kër gi te doo dajeeg moom mhm. doo dajeeg moom sax mhm. mu war laa bëgg neeg waaye nee na man daa dajeeg man laqiyani alxayu alladi laysa yamuut daa dajeeg man <laughs> xam nga loolu it taw fex la waaye mën ngaa dajeeg moom it fi ne te doo janloog taaram bu sell boobee xar kanamam ba ci misaal rek walillahi almasalu ala waaye nee na man dama da da waajahtu rabbi wa rabbi waajaha kulliyati mahabbatan lii haajaha a damaa jaa jalloog sama jëmm ji léppi jëmmam jalloog sama jëmm may may jalloog taaram bu sell ba ci lépp waaye mën ngaa dugg ci biir kër gi hmm. jalloog moom loolu lépp mën a am te du féete ak yow hmm. waaye man da féete ak tam itam nee na wala niyallahul karimul baaqi yemut ci féete ak man waaye nee xam nga man ngaa dajeeg ku eh, buur bi lépp nag ci misaal lañ jub rek walillahi almasalu ala waaye hmm. mën ngaa dajeeg buur bi te du wax yow waaye man daa wax ak man kallama ni taklima di ixfaay <laughs> fuqtu si waaye bi xitaabil baaqi loolu it ba tey am na maanaam mu mën a dégg ci ci ci hmm. ci ci ci ci ci ci charia ak ci hmm. alxuraan yëpp am na ci maanaam mu leer ndax lépp mën naa amee ci alxuraan ci ci alxuraan loolu ko sëñ bi wax sax naajaani yallaahu alkarimul akramu bi dikrihi ci alxuraan nee na la déyaaleeg man waaye ci misaal rek a wax yéen cofeel ak mahabba mm-hmm. dañuy gis ne buur bi nga xam ne moom loon dox di jëm mm-hmm. dégg nga xëccal na ko boobam mm-hmm. sësal sësal na ko ci boobam ba mu demee itam yaatal na ko wax naa ak moom dégg bëggal na ko boobam itam feeñalal na ko itam ne man ku la bëgg laa ànd ak loolu itam Euh, yëmut ci loolu lépp ndax man loolu lépp mën naa am te du la gërëm mhm. waaye neen damaa gërëm mhm. ngërëm lu rëy mhm. yëmut ci loolu itam damaa nekkal itam ba ñëpp xam ko yëmut ci loolu itam euh, damaa tërbiyal boppam def ma may ab ma dëkkaale moom mu boyal ma itam boyal ma ci lépp ci ci ci ma nekk jaam bu sell hmm. boo xam ni wa waaw waaw hmm. danaa koy misaal itam ci hmm. géej gi xam nga sëñ bi léeg moom ci moom da koy misaal wax ne damaa mar ñëw ci géej gi xëy na foofu la ñuy damaa mar nee na ñëw ci géej gi zamitu wajitul baxra dégg nga fil baxri xaadima damaa mar ñëw ci géej gi ma ñëwee sama yitte mooy raajiyan saqiyahu ñu mhm. jox ma ci ndox mi ma naan waaye yàlla dogal nee na mhm. ñu dem ba mu yàgg mhm. ñu tàmbali di ko jox ci kaas yi sharibtu min miyaahi nuurillahi xam nga ne di ko masal ci ndox mi léeg mu nga dégg mu ne la eh, sa saqaanii bi kësil qawmi man na war xija jox na ma kaas waaye léeg mu ne kaas yu bari lañ ma jox noonu ku óosuka tasqiinii bi léeg-léeg itam xadaraat yi ko jox day wute léeg-léeg mu ne saqaaniyal baaqi min miyaahi mooy tur yàlla bi ñuy wax baaqi xadra boobu léeg-léeg mu ne saqaaniyal mughni mm-hmm. saqa an qad maxa mhm. léeg-léeg mu ne saqaani ilaahi saqiya baaqin mu saxihin mhm. léeg-léeg mu ne saqaani ilaahi saqiya mugnin mhm. saqaaniya rahmaanu bi shakuri waaye léeg-léeg mu ne saqaaniya allaahu mooy allaahu moo koy jox maanaam géej gi daa bëri xam nga léeg-léeg itam mu wax suñu borom sax ne ko léegi dama bëgg nga far ma nag maanaam léeg-léeg suñu borom ne ko mën nga dëttam ci géej gi <laughs> dégg nga waaye léeg-léeg itam mu ne dama far bëgg nag nga far ma gasalub teen ci sama biir rek <laughs> may yi naan fajir yanaa bi ama il xaybi fii xalali bëri mu ngoog muy dem loolu ma na ci lu bëree bëri dañ ko defee sun ba di ko suñu borom defee nag muy ak géej nag mm-hmm. waaw Cheikh Mouhamadou kenn ci naari gànnaar yi wax na ne mm-hmm. eh, qataatu ilayka al bahra mm-hmm. wal bahru anta how an dama jaar ci géej gi di la wër si waaye naka te yaay géej gi <laughs> <laughs> ah, moom day waxtu wi tënk nanu eh. waaye yaakaar naa ne baat bi Serigne Mountakha waxoon ne hmm. sunu borom mooy ki nga xam ne dara tëwu ko waaye sëriñ bi day suñ borom jombalewu ko dara ci boppam amul sikk man mi ngi may door a leer tey alhamdulilah maa ngi koy door a xamee noo xam ne xamin wu ñu saraawu yaatoo yaatoo alhamdulilah alhamdulilah te li nga ci wax day wóor na ma ne e, doy na sëkk ab yóbbal fii ak màggal loolu nag mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon ci diggante borom Touba ak boromam tabaaraka wa taala ñu ngi leen di sant bu baax di leen jéggalu xam naa ne dagg gi waxtaan gi moom dana métti ci téléspectateurs yëpp waaye nag moom waxtu yi ñu cërale woon dafa jeex kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen kalpe orange money moo fi gën a yomb soo yónnee 10 000 francs CFA